dafa am ay usul dafa am ay melo yo xam mën ta ñak ci mbolam ñi nga xam ñoy dox ci yoonu gaay yu bax yi melo yooyee nak wax nañ ci ab lim la ci jitu moy saxo tuup ak jéglu saxo tuup ak jéglu yalla subhanahu wa taala boole ko ragal yalla gu mat sekk ak yaakar ko itam boole kook itam waxtu ne sab xol di jàq ngir wattu suñ boroom ak bàyyi xel ko ak bàyyi xel suñ borom ndax suñ borom daa mane nu ne boole koog doylu gu mat sëkk nag wala si lépp lu ma yàlla subhaanahu wa taala boole koog dëdd adduna itam wala da cee bokk adduna dafa bokk ci gàllankoor yi gàllankoor ab taalibe ci mu dox jëm ci yàlla adduna nag bu ñu ko waxee bëggu xol lañ ci jublu bëggu adduna xol Sëñ Tuubaa ba mu koy wax wax ne fan fudd yeddal xal bi mooy xol bi ci moom ngay ngay ngay ngay yëlbët wiccax ko ba mu set wecc génne ko ci mboolem lu may àdduna fan fudd yeddal xal bi li zuhdin fiiha ñu tolloon nag ci wa zuhdu fi kulli faanin baadahu waraun waraun mooy sàmm sàmm itam dafa bokk ci melo yi nga xam ne mënta ñàkk ci ab taalibe bi nga xam ne day dox ci yoonu yàlla sàmm nag lu jafe la nit ki mën naa ragal yàlla te du àgg ci sàmm ragal yàlla buñ ko waxee mooy ragalu xol moo ci jiitu waaye xawfu ginnaaw ba waa moo ci topp taqwa mooy wattandiku ak wattu suñu borom tabaaraka wa taala te mooy wattu mbooleem mboolem tere yi nga moytu ko bàyyi mboolem tere yi suñu borom yi di jëf mboolem ndigal yi itam sa kem kattan wattu googu yi nag ginnaaw ba la sàmm di ñëw sàmm moom moo gën a kawe nit ki mën naa ragal yàlla dayoob ragal yàlla te fekk du àgg ci wara wara nag moom mooy sàmm nga xam ne lépp lu lënt sax nga moytu ko xam fi ne lislaam mën naa am yoo xam ni dañ koy daganal te fekk sikk saaka nga ci ak lënt yooyee nag bàyyi yooyu yëpp ngir bañ a dugg ci lu xaraam loolu mooy mooy mooy sàmm foofu la tàmbalee sàmm nag nit yàlla yi dañuy wax ne ñetti xaaj la ñetti xeet la am na sàmm goo xam ni ñi nekk ci njëlbeenu yoon wi ca la toll maanaam sàmm ñi nekk ci njëlbeenu yoon wi du bokk ak sàmm ñi nekk ci digg yoon wa du bokk ak sàmm ñi nga xam ne ñoo àgg ñi nga xam ne ñoo nekk ci njëlbeenu yoon wi muy alawaam muy murid yu jëkk yi ñoom lënt yi lañuy lañu lañu la ñuy bàyyi mboolem lu lënt rek nga xam ne seen yitte mooy bañ a def lenn lu xaraam lépp lu ñu sikk sàkk xaraam na wala xaraam bu dañ koy bàyyi lu ñu sikk sàkk lënt na baax na wala baaxul dañ koy far bàyyi ngir bañ a def lu lu bon loolu mooy la yonente boo xoon ne innal xalaala ba bayyinun وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dafa waxoon ca xadis bi buxaari net li ak muslim yëpp ne li li dagan leer na naññi ñëpp ko ràññee li xaraam leer na naññi ñëpp a xam yi ci diggante bi nag nga xam ne moom da ngay nattable daa dagan wala daganut daa ak xaraamut nee na yooyu mooy mustabihaat mooy al umurul mustabihaat nga xam ne ñu bari mënuñu ko xàmmee nee na képp koo xam ne nee na fa ñukk yooyu yépp nag nga xam ne yépp da nga ko teg fële moom lu ñuy nattab la rek yow nga bàyyi ko nee na yow ñongal nga sa diine laabal nga sa diine leeral nga sa diine leeral ngay sa sa sab der waaw faqad diinihi wa irdihi koo xam nag lënt yooyu moom da caa dugg tabbi ca nee na kooka mën naa tabbi ci lu xaram te neena lu haram kat moy ñagub suñu borom wax ne mi ngi mel samu rek ki sammu da wara fexa ba jur gi mi sammu du dugg ci jambur lu ko moy rek day rur te neena na suñu borom nak ñagub suñu borom bi moy moy moy moy moy yi mu haramal nga xam bëggul kenn jéggé ko moy hududullah da ñom kenn waru ko jéggi ku ko jéggi rek dañu tégg daan motax yoonte wax kon leunt yoy yi nga xam daa nekk ci digënté bi nek digënté lu haram, ak lu lu dagan ku bëgg sa diiné ñong sa diiné jak sa diiné sel dang ko fa ñukku lepp lépp lu ñu warante dal dagan nak daganut bayyi fa lepp lu ñu warante bax nak baxut neeku fa na ñukk boo ko da nga muccu jamono ji nak muhammad dama nga tok ne dama tok ne jamono ji nak fi mu ne boo seetloo ci diine bari na yu bare bari yoo xam ne borom xam-xam yi moom dañ koy daganal te fekk mbir yu lënt yi lay doon mais tey li ñuy wax masaalix daa yëmul fenn masaalixul mursala ak istixsaan ay bunt la yoo xam ne dañ ciy jaar daganal yu bare bare bari yooyu nag ku bëgg sa diine ñoog moom lépp loo xam daal xaw naa am lënt wala ngay nattal bi dagan naa daganut benn borom xam-xam daganal ko ci mboolem adduna sëpp xam lu mel noonu moom nekk fa ñukk moo kon loolu mooy ñu njëkk ñi ñi nga xam ne ñoo nekk ci buntu yoon wi ñooñu moom loolu mooy seen yitte seenu sàmm dëgg-dëgg mi ngi ci yi lënt ñu moytu ko waaye murit ya dox ba ci digg yoon wa nag ñoom seenu sàmm moo gën a rëy tuuti ñoom mooy tarku maa yu kaddirul qalba wa yajaluhu fi qalaqin wa zulma ñoom seen xol lañuy sàmm bañ am lënt dugg ci bañ lëndëm dugg ci bañ luy jur fër-fër fër-fër yi euh, dugg ci maanaam ñooñu boroom xol lañuy ñu doon ahlul bi mooy ñi nga xam ne ñoom xalaat yi rot ci xel ak xol yooyu lañuy ñuy sàmmonte bañ xalaat bu bon tàbbi ca loolu nag moo gën a jafe xam nga xam nga mboole mi nga xam ne dagan naag dëgganut yooyu moom defak bul def defal ak bul def moom loolu xam nga yomb na mën nga caa fexe ba moytu ci lu bare bare waye na sax sa xel nak ak sa xol xalaat bu ñaaw bañ ca tabbi loolu mo moo gën a jafe moom sàmm googu moo gën a jafe ñooñu seen seenu samonté mo gëna jafé jafe way ña ci diggu yoonu motax wax na ne kérok ne mbolé maqamati gaay yu bax yépp bo sété ñett xaj yi la ñi door juk ak ñi ci digg ba ak ñi dem baag ñi nek ci digg bi kon ñom seen xol lañuy samontel ba xalaat yu bon bañ ca tabbi nak, xalaat yu bon nak li tax mu ci tabbi fi ne mom mooy cër yi mën a xam na ne cër yi ay jaaruwaay lañ fi ne li nga xool faw nga ci xalaat moom sa bët fi ne lu mu teg rek sa xel dana ci xalaat moo tax li ngay seetaan ni moo xam ci télé lay doon wala foo ko mën a seetaane loolu day des ci sa xel nga di ci xalaataat léegi nag kon moo tax gaa yi murid yi dëgg-dëgg dañuy woyofal lu baree bari loo xam ne duñ ko jéem a duñ ko xool ci seen bët seen bët moom dañ ciy woyofal lu bare bari ci lu ñuy seenaat ndax mooy tax seen xel féex yu bari du du toq seen xel fi ne xibaar yi boo ko digloo dañ la jox lu mat fukki xibaar ak nangam yoo xam ni lu ci ne yow sa xel da ca tàmbali liggéey di xalaat loolu nag boo ko yendoo day soxal sa xel fi ne yàlla mën na gëj ci xel mi ne loolu nag moo tax boo gisee ñu mën a muñ yu baree baree bari loolu la ngir bëgg seen xel féex ba leneen du ca toog kon ñoom sàmm googu loolu mooy sàmm gi gën a rëy moom la yonente bi waxoon ne da ma yaribuka laa ma yi yaribuk lépp loo xam daal day jur sikk sàkk ci yow ndax fi ni mu amee yu toqee ci xel noonu fi ne fi ne ay sikk sàkk mën naa ñëw fi ne mën naa dem ba sax ba nit ki mu bi mën naa dem ba mbiri àdduna yi du teqat du toqati ci xolam xelam ak xolam waaye nag ci sunu borom la am ay sikk sàkk loolu mën naa am waaye lépp loo xam daal da indil sikk sàkk rek yonente bi daan nekk fa ñukk nekk fa ñukk motax yonte bi da wax ne al birru husnul khuluq wal ismu ma xaaka fi nafsika wa karihta an yattali alayhi nas da wax ne li bax mom ñëpp ko xam moy moy lu rafet rek jikko ju rafet lépp lo xamni jikko ju rafet nangu nako rek ak wu rafet ne lool lu bax la waye nak lu bon moy lépp lo xamni tokku na ci sam xel te beggo nit ñi xam ko rek ne lool xam lu bon la moom yeah. mi ngoog moo tax gaa gaañu baax ñi ku mel ne Sufyaanu Sawri yi dalaa wax ne waraa yomb na te mooy mooy lépp loo xam ni toq na ci sa xel te bëggoo kenn xam ko bëggoo fi ne mu feeñ bëggoo kenn yëg ko ci yow nee na loolu xamal ne moom du lu baax ba daal di koy moytu mi ngoog kon loolu mooy ñi nga xam ne dem nañ ba ca digg ba seen xel ak seen xol la ñuy sàmmoonteel ba xalaat yu ñaaw di ca toq ñi nga xamne dem nañ nak ba ca njobaxtan la mom nga moy ñi dox ba ag mom ñoñu seenu sam moo gën a rëy te mooy rafdu ta'alluq bi ghayri llahi taala moy lu may yàlla ci seen xel wala seen xol loolu mom la moytu ñom nga xamne ñom duñ bëgg seen xol ak seen xel lu dul yàlla di ci tok loolu mo gëna jafé mom loolu mo gëna jafé ndax fi ne nit ki nga xamne sax mi ngi ci yoon wi man na baña xalaat mbiri aduna waye day xalaat yenen yu ci lo xamni ci sun borom la aju ak ci aduna ak ci alakhirah te muy yu bax waye dem ba luma yalla rek du tok ci xel xam nga lolu moom mo gëna jafé nga xane seen jëpp day day day nek ci sun borom tabaaraku taala lolu la shibli shibli ci gaay yu baxé da daa ne deug wara moy an tatawarra an kulli ma shi wallahi moy nga sam sa xol ak sa xel ba luma yalla du ca tok wala na kon mo gëna mo gëna jafé kon waraa moom muy sàmm mooy li am solo li lay xamal ne sàmm moom daajafe jafe sàmm daa jafe waaye moo am solo mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallama mas naa dénk sayidna abu hurayra ne ko yaa aba hurayrata kun warian takun abada naasi waaw xadis bi eh, ibnu maaja net li dafa wax sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa dégg sayidna dafa dénk sayidna abu hurayra ne ko abu hurayra dangay fexe ba sàmm rek boo ko defee nee yaay yaay yaay yaay ki kii dàq jaamu yàlla ci gaañ yi ndax sàmm nee na mooy jaamu yàlla ki gën a kawe ki ko def moom mooy ki gën a ki dàq jaamu yàlla ci ci ci ci ci gaañ yi kon sàmm lu am solo la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa daana ci ñaaxee ba tàyyi bari na xadis yu di wax ci sàmm bokk na ci li yonte bi wax ne la yablughu al abdu an yakuna min al muttaqin, hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun dafa wax ne nit ki bala moo àgg ci dëgg dëgg ragal yàlla dëgg dëgg taqwa nee bala mu ca àgg day bàyyi lu bare bare bare loo xam ne sax ayut ngir moytu moytoo dugg ci lu aay rek di fek demut ba lu bare bare lo xamni ni sax mu diko ko moytu ngir baña dugg ci lu ay di fek agut fofu rek neena agagut ci deug deug ragal yalla kon samu mo gëna kawé taqwa kon moy ko xamni bari na lu mi moytu lo xamni ni sax ayut lu dagan na lu bax la waaye baña def lu lu bon rek dana tax mu moytu ko ya fimne mu ne gis lu melni bank yi ni bank am am maanaam ak bank dafa am wet gu haram haram am na ci loo xam ne borom xam ne dagal nañ ko dagal nañ ko waaye dañuy gis ci sunu kilifa yi ñoo xam dañuy far bàyyi banque yëpp rek nga xam ne ginnaaw am na ca lu xaraam rek ne dootuñ jëflante ak moom donte am na ca lu dagan fi te mooy denc boo xam ne duñ la tegal dara du amul benn intérêt bu cee tegu nga xam ne moom leboo ci ñoom lebaluñ la lebaloo leen nga xam ne nga leen dénk sa sa alal di leen fay ngir ñu dencal la ko kese <coughs> yi demee noonu loolu lu bare bare la yoo xam ni ay mbir yoo xam ne gis ñoom kilifa yi fii di ko moytu dañuy gis lu mel ne wate yi wate yi am na kilifa yu bari yoo xam ne ñu far bàyyi wate nga xam wax da ci am ñii ne dagan na ñii ne daganul waaye ginnaaw ngi laam-laame <laughs> dagan far bàyyi lépp dégg nga mi nga kon mooy mooy sàmm sàmm mooy moo gën a kawe mooy koo xam ne moom ak moytoom ak ku ragal yàllam day àgg ci lu bari loo xam ne sax moom dara nekku ca ayut sax da koy bàyyi ngir bañ a tàbbi rek ci lu aay loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ba tey bi daana wax ne xayru diinikumul waraw waraw al al waraaw maanaam diina ji gën ci diina ji mooy sàmm <coughs> sàmm mooy diina ji gën gën ci diina sàmm moom daa jafe waaye mooy li gën ci ci ci ci ci diine mooy li ci gën a kawe sëriñ bu mag bi ci lool rek la nekkoon sàmm googu ca la nekkoon ca la doon yar mag ñi sëriñ Basiru nett li na ne mas nay dox war ci aw fas ci all bi ba rombu tolu jambru fas wi am ci tol ba lum lum lumu ma maa gàncax gi xam nga ñi bay dañuy bay ba ci ba ci ba ci ba ci yoon wi gerte wala dugub ya gana dugub la toolub dugub waye fas wi dal am lumu lumu lumu lumu mu lu ci lu ci dugub ja xena wenn gub wala dara wo xamni fas wi lal nako ko te ko neen señ bi da wacc taxaw xaar fa borom tool bu bam mu ñëw mu jéggulu ko loolee doga jall xam nga loolu ak sàmm la fi nañu bare bare fi ne dañuy yor oto wala dara mën nañoo yàq toolu jàmbur sax jaar ci digg toolu jàmbur waaye duñ ko faale sax waaye sëñ bi moom suñ mag bi nee na booba dafa wàcc xaar borom tool boobu mu agsi nee mu jéggulu ko loolee ba mu jéggal ko ko mu doga jàll mag ñim doon yar ci lool rek leen yaroon te mooy gis nañ ko mel sëñ Masamba Masamba Kanni buso sëñ Masamba Kanni buso dañoo xam dafa mas eh, di siyaare ci ba dafa mas di siyaare sëñ ya, bi ben dem ba ci yoon wa mu juli yor-yor bi muy wàcc di julli nag fekk ñaari dërëm yi mu yoroon ko siare sëñ bi ndekete rot na fa doon ginaaw ba mu depp diko wër diko xol ci si fekk fi ñett deureum yo xamne xam nga deureum yi day nuro xamut bu mu ci mom ak bu mu ci moomut amna ci wax ni momu ko waye ñaar deureum la amon te ñett deureum ak fi neena mu far fa bàyyi ñett deureum yépp dem bàyyi ko ñëw ko ne fa ñëkk ñett yépp ba mu ñewé nettali liko señ bi señ bi sand ko ci lool xam nga ko ne ko loolu mom la may li ma yaakaaroon ci yow waaye xam nga loolu bu doon keneen mënoon naa jël ñaari ñaari dërëm ya bàyyi ko waaye moom ginnaaw ñetti dërëm yi daal am na dërëm boo xam ne wóor na ko moomu ko te bëggut a bëggut a jël boo xam ne moomu ko rek moo tax mu bàyyi fa ñetti dërëm yëpp léegi sàmm googu rek mi ngoog moo tax sàmm moo jafe waaye mooy li am solo waaw sàmm moom mooy li jafe waaye mooy li am solo gis nañ sëñ sëñ Abdou Xudos mii sëñ Habib doomam daa day mas naa nettali ne am na jamono njiitu réew mi dafi ñëw yaakaar naa Abdou Diouf la wala Abdoulaye Wade Abdou Diouf wala Abdoulaye Wade comme ci xaw ma comme ci doonte Abdou Diouf waaw nee booba ànd ak soxnaam waaye da wax ne ko da ngay teel a ñëw boobu fekk na xam nga moom bëti yi bët yi boobu du gis waaye dana ko da ngay teel a ñëw nekk sama wet bala ma soxna see nuyu nga xam ne soxna si xam nga bu ko nuyu woon du ko wàññi <laughs> bañ soxna si jox ko loxo rek xam nga loolu mooy ak sàmm sàmm moom moo tax yonente bi wax ne xayru diinikum al waraaw waaw maanaam diine ji gën ci diine ji daal mooy sàmm sàmm mooy li jafe waaye mooy li am solo yonente bi sax daana wax ne salaasun man kunna fiihi istawjaba thawaaba wastakmala al imaana xuluqun yaiisu bihi fi nnaasi wa waraun yaxjusuhu an maxaarimillahi wa xilmun yaruddu bihi jahla al jaahili nee na ñett ngi yoo xam ni ku ko yàlla defal ku nekk ci yow mboolem lu di yool am nga ko dara rëccatu la fi ne ci yool yool ak tuyaaba yi suñu borom di bindal doomu aadama yi ngëm itam matal nga ko la ca jëkk mooy jikko joo xam ni da koy mën a dundee ci biir nit ñi jikko ju rafet ñaareel ba mooy sàmm goo xam ni day su sa digganteeg def lu yàlla xaraam lu yàlla xaraamal ñetteel ba nag mooy lewet goo xam ni da koy jëflanteeg ñi nga xam ne dañoo xamul ñu réer ñi kon jëmmi sàmm moom gis na yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne moom daawut lekk sarax mook mook alu bayt mook mook ñooñam waa këram benn bis wax nañ ne sayiduna xasan doomi sayiduna aliyu dafa for ab tàndarama boo xam ne ci tàndaramay asaka ji bokk wala ci sarax waaye yonente bi da koo téye di ko wax ne ko gëq ko ne ko naan ko kex kex diko ki kii ba lam ca xexon mu yàbbi dal ne nun dun lek sarax nun hadiya lañu lekk dafa ne tan la ma xëy da nga nan koku mo nako baña wañi dara xam nga ay gis nga yonte bi da ca sonna sonna bu mu wat ko kon jëmmi sam mom moy li gëna kawé ci diine te moy nit ki eh, mom eh, lepp lo xam dal leunt na rek ci jëflante ak lu lam, lamé dagan naag dëgganut bax nak baxut nek fa ñuk da gëna a sa mom da gëna wuur a goge nak mëna dem ba ci sam xol ak sam xel moy li bëpp xalaat bu ñaaw ak bu bon nga lijjanti nga fexa ba génne ko sa xel ak mu baña tok sa xol ak sa xel mi euh gis nañ gañu bax ñu ñi tam salafu salih ci lool rek lay nekkon gis nañ ku melni Abdullah ibn Mubarak Abdullah ibnu Mubarak wax nañ ne mas masna jóge fañu ñuy wax xuraasaan xuraasaan bu jóge fu basam manan ne ay rew yu bare bare bare la dox ngir ben khalima bo xam dako abone ben way di waaye ca bind fàtte ko nak ba yobale ko fam mu dëkk mu deppat nak basam dem ba wetti yaakaar naa mooy feeñoo afghanistan ci diggante yooyu du sori foofu nga xam ne dem na ay réew yu sore sore sore yi genn benn xalima boo xam ne da ko abboon benn ay di ci bind fàtte ko yóbbaale ko ba fa mu dëkk waaye daa dëpp nag ba saam ba ba ba ba ba fi ñuy wax syrie tey diggante syrie ak liban foofu la wax saam foofu la wax saam nga daa dil si waat ci genn xalima xam nga xalima moom bu doon jamono ji moom yow xalima bu jàmbur fi ne bi seen nga yóbbu ko te doo ko yëg ñëw leen kii leen nii da ngeen ñëw nii ñëw leen nii fi ne bu dee sun sunu classe gi jàng moom téereb jàmbur moom fi ne bi seet nga jël ko moom te te doo ko delloo fi ne téereb jàmbur bi seet nga jël ko daanaka te doo ko te doo ko delloo nga doo ko bàyyi xel sax moom te fi ne yu sew sewaan yooyu fi ne daa daa day nuru lu sew waaye dara sewut ci sunu borom xam nga sunu borom moom dara daa daa daa tuutut ci moom waaw dara daa tuutut fi ne jànkat yu bare bare sunu classe gi téereb jàmbur moom daanaka jël ko te doo delloo moom téereb nag yaakaar ne moom du dara moom mën nga koo jël ko doo xalaata delloo sax moom waaji moo tax ñu bari fi ne siwaruñ ci abale téere ndax téere koo ko abal ko du dellu si <laughs> mi nga kon sàmm loolu dafa bokk ci cosaani yoon wi dafa bokk ci principe bi yoon wi mënta ñàkk ci doxub murit bi itam xaw muy jéem a dox jëm ci sàmm tàmbale ci njëlbeen gi mooy jëflante yi ak mboolem lu ñuy nattable xaraam naag xaraam mu nekku fa ñu ko foofu la tàmbale ba keroog ngay mën a sàmm sa xol mi ngok kon maa tawakkuli nag moo ci tam bad wa zuhdu fi kulli faanin badahu waraun maa tawakkuli sabrun kulla saaxaati ba tey tawakkul itam muy wakkirlu ci sunu borom tabaraka wa taala lu mënta ñàkk la ci doxub murit bi wakkirlu mooy bàyyee sa bopp sunu borom tabaraka wa taala loolu itam mënta ñàkk ci doxub bépp murit Eh, ginnaaw ba muñ doog a ñëw yëpp lu ci ne danañ ci taxaw insha allahu taala waaye wakiirlu moom dafa bokk ci li mënta ñàkk te mooy xam ne yàlla maanaam wakiirlu moom ku gëm yàlla rek moo koy def sax nag ki gëm yàlla dëgg-dëgg mooy mën a wakiirlu waaye ku gëmul yàlla du mën a wakiirlu waaw wakiirlu dafa bokk ci melo yi doxub góor yàlla yi ba tey nga xam ne mën la ñàkk ndax suñu borom da koo digle ci alquranul karim wax ne wa alallaahi fa tawakkalu in kuntum muminina mooy na ngeen wakiirlu ci suñu borom ndax dafa laale ngëm maanaam ngëm ci boppam daal laaj wakiirlu daal laaj sa mbir nga féetale ko suñu borom bàyyee sa bopp suñ borom wóolu suñ borom itam waaw wa alallaahi fal yatawakkalil muminuuna nga xam ñi gëm yàlla moom faw dañuy dund lañuy wax wakiirlu wakiirlu nag <clears throat> ay maanaam ay maanaam bokkut li ma li xam mooy wakiirlu itam ay xeet la wakirlu ñi nga xam ne ñoo nekk ci njëlbeenu yoon wi day wuuteeg ña nek ci digg yoon wa day wuuteeg itam ñi nga dem nañ ba ag, kenn ku ne sa wakirlu day wuuteeg sa morom Imamul ghazali ca ihya ulumuddin misaal na ci melo te mooy am na ñoo xam ni dañuy mel ne kal mu wakili maal wakili tay bu fekke da nga amone jafe-jafe ba wara dem tribunal ba wut li wax avocat biru gi nga koy mbiru sa dossier bi ngir mu lijeentiko xam lolu wakir la xane bayé nga ko mbir mom ngir mu lijeentiko lolu moy wakir lu gu ñek fi ne ñi nek ci benu yoon wi lu gu mel nanu lañuy def seen ak seen borom tubaar taala ya xane amna luñ ko bayé ci seen mbir rek waye du seen lepp du lepp lañ koy bayé fi ne ña digg diggu yoon wa moom seenu wakiirlu mooy mi ngi mel ne xale bi ni mu bàyyee boppam yaayam nga xam ne lu mu bëgg rek ci yaayam la koy wut xam ne mbiram bàyyee na ko waajuram waaye nag boo amee yitte ci moom rek bu soxlaa rek bu bëggee lekk mbaa mu naan ci la yitte woo waajuram bu jigéen ne ca digg ba noonu la ñuy seen diggante seen seen ci wàllu wakiirlu ñetteel ba nag mooy <clears throat> ki nga xam ne dafa wéradi dem hôpital docteur bi bu koy faj na mu koy bàyyee boppam nga xam ne moom du amuk tànn moom lu ko def loo mu def ko fu mu ko jëmale mu jëm ko nga xam ne moom léppam lay lay bàyyee docteur bi loolu mooy ñetteelu ñetteelu ñetteelu xeet bi imaamul Ghazali noonu la ko misaale ñett yooyu dañoo dañoo wuute fi mu ne ku njëkk gi nga xam ne tey dafa mel ne avocat bi nga bàyyee sa dossier bi ngir mu ngir mu di la défendre loolu daa am wet goo ko bàyyee rek fi ne waaye mën nga ko tuumaal fi ne mën ngaa jàpp ne maanaam defu ci yitte tuuma mën na ci am xam loolu moo gën a moo gën a néew ñaareel bi muy nit ak ndeyam xale bu ndaw ab liir ak ndeyam xam kooku tuuma du ci am waaye nag bu yittewoo rek bu aajewoo rek lay bu soxlaalee ndayam rek la koy jox yitte lay jox yitte waaye man bu fekkee dem na ba suur ba amul benn jafe-jafe fi ne loolu mën naa bañ a yittewoo ndeyam ñetteel bi nag muy ki nga xam ne day daa wéradi nga xam ne moom ki koy faj kooku moom moom moom moom moom mënta tuuma du ci am ndax day wóolu docteur bi ñaareel bi itam dako koy yittewoo ci lépp bàyyee ko boobu itam ci wet ci wet yëpp du am genn tànn ci boobu itam lu mu ko def loo itam dana ko def nga xam ne moom day mel ne kal mayti rek daanaka lay xaw nur bay na yedee xaasiri ñetti xeeti yooyu moo am wakilu nag <clears throat> day loo xam ni sunu borom tabaaraka wa taala ci alquranul karim na ci lu bëree bëree bëri maanaam mooy meloy eh, nit yàlla yi mooy ne meloy ambiyaw yi sax nag Seydina Abdullah ibn Abbas daana wax ne daana wax ne xasbunallahu wa ni'mal wakil day sayiduna ibrahim alayhi salaam bañ koy sànni ca sawara lool loolu la waxoon xasbunallahu wa ni'mal wakil sayiduna ibrahim alayhi salaam xam ngeen ne namruus la dajal jamono namruus di buur boo xam ni daa wedd yàlla te doy waar lool sayiduna ibrahim nag yàlla yebal ko yónni ko mu di yónant woo nit ci jaamu yàlla ak gëm yàlla bi nga xamee ne Namruus nag weddi na ànd ak ñamu àndal yëmu ca daa bëggoon a lakk Seydina Ibrahim taal sawara woo xam ne wax nañ ne taal nañ ko ay weer ba lu jaar ci diggante kaw asamaan si ak sawara wi sax day tàbbi ci biir bañ ko taalee nga xam ne pax ma kenn mënu koo jege nee nañ iblis mo ñew jangal leen nan la def ba sanni ko ca moy jël lu melne ay denk yo xam dañ koy dajale def ko lu melne lasper nga xam buñ ko ci tëralee sanni ko mu dugal ko ci biir pax ma nga xam non lañ def mbaq ko li ñuy wax mbaq mu sanni ko mu dugg ci wax na ne bamuy muy dugg nag <clears throat> booba lam wax moy hasbunallahu wa ni'mal wakil sayyidna abdullah ibn abbas ne lool wax loolu tax yalla sun borom tabaraka taala musal ko ndax suñu borom nee na wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa xasbuhu yàlla moom boo ko bàyyee sa bopp dana la doy sëkk dana la euh, mat sëkk ci wet yëpp dana la taxaw ci wet ci wet ci wet yëpp itam dana doy sëkk ndax yàlla moom mooy ki gën a mën a taxaw ñëpp mooy ki nga xam ne tey moom loxo maanaam booleem looy ragal rek ci loxoom la ne ñi ngay ragal itam moo xam ñu mën a doon rek seen mbir yëpp ci loxo suñu borom la ne mboolem ñi ci kaw suuf ñëpp seenug dund ak seenug noo lépp ci loxol suñu borom la ne am suñu borom moo yor lépp kooku nag boo ko bàyyee sa mbir xam ne la ko bëggee doxalal kooku moom gis nga moo tax gaay yi nga xam ne ñoo ñoo ñooy ñooy xeej yi dëgg-dëgg dañuy bàyyi seen bopp suñu borom na Ibrahim mi wax nañ ne bañ koy dugal ci sawara wa Jibril daa ñëw ndax boobu malayka yëpp dañoo dañoo yu dañoo am jaaxle ndax xam nañ ne booba Ibrahim mooy ki gëm yàlla ci kaw suuf te bu fi jógee wala ñu faat ko waa diina day day jeex amul kenn kuy jaamooti yàlla biñ ko jàmbatee suñu borom suñ borom ne bu la neexee ngeen dem moom jéem ko xettali wax ne ne malaayka ma Jibril ba mu ñëwee wax ko ne ko ndax amoo loo bëgg ma waxal la ko suñu borom dana ko daal suñu borom mi nga xam ne moo ma moo dogal ci man xaal bii moo dogal ci man xew-xew bii xam na li ma nekkee te xam gi xam li ma nekkee doy na ma sëkk jërul amul lenn lu may lu may ñaan bàyyi boppam suñu borom loolu mooy wakkiilu dëgg dëgg wakkiilu moo tax nag suñu borom <coughs> koy xettali qul naa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim nga xam ne sawara wa lëkk ko xam nga sawara moom du lakk yàlla ci moom mooy lakk la ñuy wax waaw sawara day lakk ci ndigalul suñu borom tabaaraka wa taala ak kattanuk suñu borom tabaaraka wa taala moo tax sawara bañ ko ci dugalee waxna na ne moom jamono yam am ci bir sa waro moo mo a neex ci dundam lan lañ wax motax kon Seydina Abdullah ibn Abbas waxne ne bañ ko sa waro mom Seydina ibrahim hasbunallahu wa ni'mal wakeel la wax nee na Muhammad itam bi nga xamé ne dem na ba li sun borom wax inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan imaanan wa qaalu xasbunallah wa ni'mal wakiil Seydina Muhammad it la waxoon bañ démé ba waa makka ak yéfer yi dajalo bëkk lor dé nga té bobu julit ñi néw doolé bobu baat bobu rek la wax hasbunallahu wa ni'mal wakil mom la ko sun borom waxalo mu wax ko lolo ko musal kon wakirlu ak baye sa bopp sun borom tabaraku taala da jafé lol ndax dama do mom léeg bala mo xalaat sun borom sa da dem ba pexé yépp jeex mu doog a koko mbir yeeg yalla waye sun borom mom kuko sa bop mooy ki gën a mën a doxal mbir yi mooy ki gën a mën a taxawu eh, te suñu borom it daa bëgg ñi nga xam ne dañuy dañuy seen bopp dañ koy maanaam dañuy bàyyi seen bopp seen borom inna allaha yuhibbul mutawakkilina <coughs> yuhibbul mutawakkilina mi nga kon wakirlu mooy loo xam ne mënta ñàkk itam ci doxub gaa yu baax yi mooy bàyyee sa bopp suñu borom xam suñu borom moo yor sag dund yor sa wërsëg yor lépp itam la yonente ba sallallahu alayhi wa waxoon ne law tawak law tawakkaltum xaqa tawakkulihi la rusiqtum wala la rasaqakum kama kama yarzuqu tayra taxdu ximaasan wa taruuxu bitaanan maanaam doomu aadama yi bu ñu wakiirlu woon dëgg dëgg wakiirlu nee na suñu borom dana leen wërsëgal ni muy wërsëgale picc yi xam nga picc yi ñoom <coughs> amuñu benn dund bu ñuy bu ñuy denc dañuy xëy rek di wër di for <coughs> waaye bi set yàlla dana leen wërsëgal loo xam ne danañ ca mën a eh, sàmm seenu dund te duñu am benn jafe-jafe ñoom ñoom picc yi ak mboolem ñi ñi mala yi nga gis ci kaw suuf rek yàlla leen sàmm moo leen yor waaw léegi nag doomu aadama yi ñoom seenu wakiirlu ak seenu wóolu yàlla moo des mooy mooy des lee rek waaye wakkilu itam tekkiwul toog rek fine toog rek bañ def dara loolu bokkut ak wakkilu loolu moom tawaakul la tawaakul ak tawakkul ñaar yooyu bokkuñu gis nga picc yitam fi ne du xëy toog ci tàgg mi day day day day day génn tàgg mi dem wër doo ko gis lu lu mën a jëfandikoo suñu borom wërsëgal ko waaye bu toogoon ci tàgg ma rek fi loolu du doon tawakkul loolu tawaakul lay doon maanaam kon moo tax jëfandikoo sabab yi jotewut ak dara fi mu ne wakkilu wakkirlu moom daal ànd ak jëfandikoo sabab yi wakkirlu mbirum xol la mooy sa xol ci boom ci nga moom ngay bàyyee yàlla ak sa jëmm xam ne suñ borom mooy doxal mbir yi nga bàyyee ko sa bopp loo gisit xam ne moo ko doxale noone nga gërëm ko te bañ a xarab itam kon wakkirlu moom ci doxub góor yàlla yi la bokk wa zuhdu fi kulli faanin baadahu waraxun maa tawakkuli sabrun kulla saati sabru itam mënta ñàkk sabru mooy mooy muñ mënta ñàkk ci doxub gaa yu baax itam ci usool yi la bokk ndax adduna lépp nattu la wa lu bi charri wal xayri lépp nattu la natt yooyu yi nag daa aaje muñ muñ nag Sëñ Tuubaa ca am na sax bunt boo xam ne incha allah danañ ci àgg ci ci téere bi eh, waaye muñ sëñ bi daa ñetti xeeti muñ moo am sabru an ak ala ak fii sabru an <coughs> mooy anil maasi waaw muñ ku njëkk mooy muñ mbooleem li yàlla aaye ak li yàlla xaraamal ak lépp lu dig mooy yàlla ak lépp luy bàkkaar ak lépp lu bon loolu moo ci jiitu te loolu day aaje nga jihaad ak sa bakkan ba bañ a def lenn lu yàlla aaye ak lu xaraam ak lu bon muñ googu moo jiitu loolu moo tax jihaadu nafsi mënta ñàkk walladina jahadu fii na lanahdiyannahum subulana la suñu borom wax ñi nga xam ne ñooy jihaad seen bakkan fexe ba lépp lu yàlla aaye moom ñu tënk seen bopp ba duñ ca tàbbi moom la la di ubbil ay buntam lanahdiyannahum subulana قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى موي تزكيه مانام لولو موي دوخو غاي تي فخبا تنك سا بوب تي لي يالا بغ لول نك اك موغن لا لاج نخ موي يالا يي دافا داي نيه تي بكان وايي بونتو سوارا لا فيلي يونت بي صلى الله عليه وسلم دا واخون ني حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات دونون لا معنى سواره yu neex ci bakkan moko ko wër mooy bànneexi bakkan yi boko topé toppee sawara la la jëme aljana nak yu nakari ci bakkan moko wër boo maanaam boo sa bop teunk sa bakkan baña def lu bon baña def lu haram lolu moy buntu dem aljana moy yoonu aljana itam mi ngok kon lu haram ak lu bon lolu muñ ko moy muñ gi jitu ci muñ yi muñ gi ci topp nag mooy asabru alal masaibi te mooy boolem eh, jafe-jafe yi am rek ak natt nattu yi am rek nga muñ ko muñ ko rafet bañ a jàmbat te xam ne lépp yàllaa ko dogal waaye ni ko yonent bi daa waxe nag asabru inda sadmatil ula mooy fa mu amee rek nga muñee loolu maanaam bañ a ba ñàkk pexe doog wax ne muñ na léeg-léeg mbir am nga jàmbat seet pexe mu ne ba pexe yëpp jeex nga doog wax ne maa ngi muñ fekk xam nga loolu du muñ muñ moom moom fa mu amee rek fa mbir ma xawee rek nga daal tàmbalee muñ xam ne yàllaa ko dogal nga delloo lépp ci yàlla ndax àdduna kërug nattu la suñu boroom ci moom maanaam amul ci gaa gaa yu baax yi ku fi mas a jaar ci kaw suuf te suñu borom nattuwu ko ñëpp lay nattu tàmbalee ko ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi mu gën a bëgg gaay gaayam yëpp gis na yonente bi sax wax na ne ambiyaw yi ñoo ëpp ay nattu ginnaaw ba ku leen gën a jege rek ci mbaax yaay ëpp ak ay ay ay nattu gis sëñ bu mag bi dundam gépp gis nga ci nattu la ko nekk faneeri faneeri at ñett yoo xam ne lépp ci loxoy tubaab yi la ne ñu di ko génne réew meeg fu ne ñu dugal ko coono bu ne ñu teg ci loo xam ne defu leen dara moo tax suñu borom wax ne ahasiba naasu ay yutraku a yaqulu amanna wa hum la noonu mënta ne maanaam mo imaan moom boo ko amee gëm yàlla dëgg-dëgg te andu takki and amoo benn nattu loolu moom mënta ne faw ki gëm yàlla suñu borom da koy nattu moo tax nit yàlla yi buñu mësaa toog ay weer rek fi ne te dara jotu leen amuñu benn nattu dañuy tiit ci seen bopp dañuy jaaxle ndax suñu borom moom gaayam yim bëgg faw mu nattu leen la tublawunna fii amwalikum wa anfusikum <coughs> wala tasmaunna min alladina utul kitaaba min qablikum wa min alladina ashraku adan kathira <coughs> mooy nattu yi mën nek ci sa jëmmi bop ay wëreedi yo xamni ni da lay sonal ci sa jëmmi bop wala bok mu nek ci sa alal wala sa biiru njabot wala sa kër wala yu ne demee ay nattu dal mom ci li la wër wala ci sa jëmmi bop rek fi fi anfusikum wala wala fi amwalikum fi amwalikum anfusikum wala sax wala tasma'un min alladhina utul kitaba min qablikum alladhina asraku adan katiran wala bok mu nek wax ju ñaaw juñ lay wax yàq sab am na jëmm yoo xam ni ay jëmm lañu baax waaye yàlla leen di nattoo ay nit ñoo xam day nekk seen wet dañuy nekk ci wetam bopp di yàq deram rek nga xam ne moom moom dañ ko dañ yàq deram ngir yàq deram rek xam ne moom dara taxu leen a jóg lu may yàq deram nga a neex te loolu ñëpp ko am nag fi ne sëñ gis nga li ko booleeg Tuubaa bi du lu may ay nit ñoo xam ni yàlla leen nattoo ñu iñaane ko wala ñu bañ ko wala lu mën a xew rek waaye di yàq deram rek di ko waxal loo xam ne dara amu ci ko sosal xam ne dara amu gis nga lettre yi mu bindanteeg tubaab yi am na lettre boo xam ne dana ko ku wax ne bëgg naa lenn lu may lu may def ndigalul yàlla ak def ndigal rasul sallallahu alayhi wa sallam wax ko ne la mu wax amut man loolu rek ci laa ne adduna sii ngeen di wut soxlawu ma ko àllaaxira jeeme wutut yéen soxlawu leen ko xam nga loolu mënoon nañoo bañ a daje ñoom ñaar kon jëmmi Natu, ci yépp lay amé nak moy mëna nek ci sa jëm wala mu nek ci sa alal ak sa njabot ak say say di la wër wala mu nek ci nit ñu la jege di la waxal wax ju ñaaw loolu nak bo fa nekké di tontontee ak kula def nga def ko ku wax nga wax ko yow ma taxaw nga doxo gaay yu baax yi deug deug dawuñu ñu gesso dañu xani al multafitu la yasim kuy du àgg mukk du dem fenn te ñi ñi lay wax ñiy wax ci yow mooy ñi ne sa ginnaaw fi ne maanaam dox yi nag lu moo xam daal dëng wala nu mën a mel ka koy gis mooy kana ci ginnaaw waaye kana sa kanam xam nga du gis du gis du gis du gis du gis saw melo ak sawdoxin doxin mi ngoog mi ngoog kon nattu mënta ñàkk nattu nag ñaare am benn mu nekk loo xam ni sunu borom da koy teg jaam bi ngir faral ko ci ay bakkaar nga def ay bàkkaar ak ñaawteef yoo xam ni sunu borom bëgg na la ko jéggal te yow defoo lu tax mu war la koo jéggal mu teg lay nattu yoo xam ne dina tax mu jéggal la benn buntu la ci wala boog mu teg la nattu ngir yéegal say daraja loolu day am nattu kon ñaar yooyu rek la benn mu nekk loo xam day yëkkati daraja joo xam ne sunu borom yéene na la ko te jëfoo lu la ko may. mu tek lay natou nak way ci kaw nga muñ ko muñ gu rafet nak bo muñul nak wala ngay jambata ka yow ka wax mom bo mom do ag ca la la sun borom yene mom waa yow mom moom muñ gu rafet daa mënta ñak ci natou yi motax natou bo nattu ba li ko borom tuddu ci alxuraan nak lu bare bare la wala bi shay'in min wal ju'i wa naqsin min al amwaali wal anfusi wath thamarati waaye dafa wax yonte bi ne ko wa bashiri sabirina wax dinaa leen nattu ci xeet yu baree bari dugal am tiit ci seen xel ak seen xol ci misaal lu mel ne wéradi yi xew rek ñoo ne corona bi nangam boo nuyoo nangam ki xam nga tiit mi ngay mi nekk sa xel rek loolu fi ne aje muñ ak delloo lépp ci yàlla waaye boo jàmbatee tiit jàpp ne maanaam mbindee fa ko def wala la fa mo la ci mën a musal ku may yàlla ginnaaw yàlla loolu xam nga bu ko tek muñ day dàqonte ak muñ deug dëggi muñ day aajee loolu lepp nga delako ci yalla te muñ ko muñ gu rafet <coughs> wala joo moy moy moy moy bekor masalan bo la tek bekor wala xif wala jafé jafé ab dundu yooyu ci sun borom di natto jam ñi le bokk ya wala mbay mo xamni du nangu wala sax njabot am ñoo xamni lu gone guñ am suñu borom faat ko yooyu yëpp fi ne day aji muñ day xool ba xam da ngay muñam déet rek suñu borom moom li muy xool mooy ndax da ngay muñ wala doo muñ mi ngoog wa bashiri saabirina yonte bi suñu borom da ko wax ne na nga bégal nag ñi nga xam ne moom bu ab nattu tegoo seen kaw dañuy muñ da nga leen bégal waaw alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna loolu nak li tax li ci dimbale nit ki moy nga xamne ne dara da neenut lu mata bay xel moy dara neenut fi ne wa alaykum salaam yonente bi dara wax ne ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta ash shawkatu aw hatta ash shawkata yushakuha illa kaffara allahu biha min khataya lépp lu dal jambi rek ak lu mu mën a doon ak moo xam lu tuuti la wala lu rëy moo xam ab coona la wala wéradi wala njàqare walla jafe-jafe wala sax maanaam li ñuy wax problème boo xam ne daa ñëw jaaxal la ni yooyu yëpp ak jaaxle yooyu yëpp lu ci mën rek ne yonente bi di wax ne donte ak dégg sax moo la moo la sokk nee loolu na nga xam ne bunt la boo xam ne suñu borom da ci jaaree faral la faral la mbooleem ñaawteef yi ne ci yow yooyu yëpp day far ay ñaawteef maanaam jullit moom lépp aw yiw la loolu yonent bi daa wax mboolem lu la dal rek donte dégg moo la jama moo sook moo wala nga jaaxle wala jafe-jafe am walla nga sonn yooyu yëpp suñu borom da ci jaare di la faral aw ñaawteef moo tax kon jëmmi jafe-jafe yi am ni loolu jullit bi da ko wara muñ muñ gu rafet rawati nak murit bi nak mi ngok kon muñ lu mënta ñak la suñu borom ci alquran da ko digle ba tay istaeenu billahi wasbiru waaw leeg sax mu tag ñi nga xamne dañuy muñ wasabirina fil ba'sa'i wad wadaraai wa hina al albaasi ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun yi nga xamne bu jafe-jafe amé lor am metit am dañuy muñ te yàlla rek tax ñooñu suñu borom dafa xam ne ñooñu mooy ñi dëggu ñooñu murid saadix dëgg-dëgg mooy ñooñu murid saadix dëgg-dëgg foo ko fekk day am muñkat lay doon te mooy ñooñu mooy almuttaquuna mooy ñi ragal yàlla dëgg-dëgg ñooy ñi bàyyi xel yàlla ñooy ñi nga xam ne ñoo euh, ñooy def ndigali yàlla yi dëgg-dëgg di bàyyi tere it la yàlla fi ne borom wax na ci alxuraan wallahu yuhibbu saabirina dafa bëgg ñiy muñ suñu borom dafa bëgg ab muñkat waaw waaye jàmbarkat koo xam ne moom moom moom dara du ko mënu ko muñ jàmbat rek lu ko waaye def wala lu waaye xew itam moom faw moom mu jëflante ko wala mu jiñ ko doomu aadama kooku moom mafhumul mu xaalif ci aaya bi mooy yàlla bëggu leen kon loolu lay tekki ab muñkat la yàlla bëgg waaye safaanu muñkat ko yàlla du ko sopp bëgg ko mi ngoog te suñu borom wax na ne ñi nga xam ne dañuy muñ ëllëg bu leen di fay du ko wutal xisaab du ko du ko dugal ci compte دو امو لم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب نيغا خامني اي ائمه لا دغ دغ وا نيغا خامني نيوم لا يالا يالا جيتال سي كاو سي كانام مينديف ني دون يونتي ايتام فولن فك اي مونكر لا ني دون وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا لما صبر اما امام امام سي دينه لو ري لا درجه من درجات الكمال loolu nag ka cay àgg dëgg-dëgg ab muñkat lay doon suñ boroom moom dañuy wax ne bala mu laa dénk ay sekkaram bala mu laa jege ñal faw mu nattu la faw mu nattu la nga muñ muñ gu rafet mu doog laa tànn nag jiital la nag boole la ak nit ñi itam maa nit ñi sa njëlbeen fi ne faw dañ lay contre ñoom ñëpp loolu kenn amu ci garab nit ñëpp la maanaam yonente bi mboolem ñu baax ñëpp fi ne seenu njëlbeen nit ñi lañ leen contre waaye buñ muñee muñ gu rafet bañ a geesu suñu borom day xëy soppi xeli nit ñi ak seeni gisin ci moom ñu bëgg ko te duñ ko tey sëñ mag bi gis nga njëlbeenam xasida yu njëkk yi xaalu safihun loolu lañ ko daa tudde waaye mujj na ñëpp nongul ko nga xam ne fi ne mboolem ña nga xam ne sax nonguluñ ko woon fi fi ne tey maanaam bu fi amee sëtit seeni sët du bëgg kenn du bëgg ku nettali loola ne sama am nangu loon sëñ bi <laughs> kenn bëggut ku ko nettali ku ko wax ngok mooy mooy suñu borom noonu la ndaw moo tax muñ mooy yoonu mooy yoonu yonante ya yoonu nit yàlla yi mooy yoonu ña jege yàlla wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alayhim wala taku fi dayqi mimma yamkuruna loolu digaloon yonante ba waaw ah, mooy na nga muñ yonente bi loolu lañ ko digaloon gis nga yonente bi sallallahu alayhi fukki at woote na ko mag kenn topp ko kenn topp ko ay benn benn mooy ñi nga xam ne dañ faa ñëwoon ñi ay jaam lañ woon yoo xam ni dañ leen a yërif ñee daanaka ay nit lañ yoo xam ne daanaka kenn xamu leen ci dëkk ba dañ fee ñëwoon ay doxandeem lañ fa ay Suhayb ar-Rumi ñoo xam ne dëkkuñu fa Bilal al-Habashi ak ñu demee noonu salmaanul farisi ñoo ñi nga xam ne daanaka dëkkuñ ci dëkkam salmaan sax moom xëy na dina la ñëwee waaye ña ko njëkk topp xam nga boobu mooy ñoo xam daanaka joxuñu loon genn gëdd foofa ci dëkk waa dëkk ba kilifa yëpp weddi ko ci loolu dañ ko daa fi ne yonent tamit Buxaari net li na ne dox na ca digg màkk ba mu yàgg ñu doxe ko ginnaaw jël lu mel ne booli suuf këpp ko ko ci boppam te booba kilifa la am ñeent fukki at ak xam nga ci digg dëkk ba ñu def ko lool xam nga loolu day daal di waar mu nga xam ne bi mu ñëwee ci kër gi kenn ci doomam yu jigéen yi moo ko doon faxasal bopp bi lu ne ci lu ñaaw ñu di ko def waaye gis nga da ko muñ muñ ko def gis amul fenn fu ñu nett leene doon na fayonte ak di toppanteeg ñoom loolu bu ko doon def bu ko defoon du doon du doon du doon muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon keneen lay doon gis nga boo demee ba fukki yi ba lu jege fukki ña ko doon jàppale ñëpp sayidna abu talib ak ak ku mel ne soxna xadija ñu ñëpp xam nga ca lañ nelaw mu dem fañ wax taif ci nga xam ne ay ay nijaayam lañ bëggoon ñu jàppale ko waaye waa dëkk ba ñoom dañoo wut ay gone ak nit ñoo xam ni amuñu solo ñu jox leen ay xeer ñu topp ko di ko ko di ko ko di ko ko sànni ba tour deratam nga xam ne gëmuñu ko yemuñ ci bañ ko gëm waaye dañ ko dañ ko lor mooy mooy mooy sànni koy xeer ba ba deretam génn gis nga ci la waxe allahuma ilayka ashku duxfa quwati wa qillata xilati wa hawani ala nas. jàmbar sun borom doye di gi nga xam ne moom la moom lay dund ci biir nit ñi ak néew doole gi ak pexe yu yi gis nga ah, da ko muñ muñ gu rafet di fayonte sëñ bu mag nono. moom mooy ki ñu gën a tooñ fi ne ci dundam boo ne daanaka juróom-ñaari at xam nga mag moo xam ne deful dara Sëñ Tuubaa xam nga boobu moom mooy mag moo xam ne ñeent fukki at am na ko yoruk njabootam yori taalibeem ñu ñëw jële ko fi yóbbu ko ci ca Gabon nga te defu leen dara juróom-ñaari at yoo xam ne yoo xam ne ci tumuraanke la la fa ne wutaluñ koon sax bërëb bu ñu bu mu dëkk ci digg àll bi rek lañ ko bàyyi nga xam ne mooy lijjante ba dafa am baaram teg ci bagaasam xam nga loolu ak tooñ la waaye loolu lépp da ko muñ muñ gu rafet te teewul sax da ca yëmu ca da da leen a jégal xafawtu li wacci llahi ma wi kalkali xafawtu anil aadai turran li wacci man nafaahum li kon muñ googu mooy yoonu gaayu baax ya mooy yoonu gaayu ya كما صبر اول العزم من الرسل أولو العزم يتم لين دف أولو العزم موي موني غرافات كون موني دا بوكو تي ا آه، يونو غاي باخ مو تك تي ا آه، صبر كل ساعات وايا نك جهاد نفس وشكر بالقضاء رضا ترك التفات الى حال البريات من نيو غاتال رك wax ne jihaadu nafsi am na bunt dañ ci ñëw incha allah jihaadu nafsi itam lu mënta ñàkk la mooy xeex ak sa bakkan ba mbooleem sikki bakkan yi nga génne ko ci sa jëm ak sa xol jikko yu ñaaw yëpp ak yu bon yëpp nga fexe ba génne ko ci sa xol ak sa xel ak sa ak sa bakkan ak sa jëm dugal ci nag jikko yu rafet yi loolu mooy jihaad loolu nag mooy jihaad ji gën a rey fi ne ndax mom la yonente bo xamne al mujahidu man jahada nafsahu al mujahidu man jahada nafsahu hadith bi imaamu tirmidhi nettali ak ahmad ibn hanbal waxna ne yonente bi waxne ki jihad deug deug moy ki jihad ak bakanam fa man maata an hawahu faqad hayya an ad dalalati wa bi ma'rifati an al-jahadati kon jihad ak sa banex lolou moy jihad ji gëna kawe amna benen hadith bo xamni yonente bi da wax ne Eh, jóge ngeen ci jihaad ju ndaw ji te mooy jihaadu xitaal xeex noon yi ñëw ci jihaad ji gën a mag ñu ne ko jihaad ji gën mag mooy jan mu ne mooy jihaadu nafsi mooy jihaad ak sabakan xadis boobu am nay wax waaye imaamul bayhaqi nettali na ko mi ngoog kon jihaad ak sabakan fi ne loolu loolu li koy dëgëral rek mooy mbooleem aaya yi wax ci jihaad te wàcc ca màkk yooyu yëpp jihaadu naf jihaadu nafsi la lañ koy lañ koy jëmale ak jihaad fillaahi wa fillaahi walladina jahadu fii naa lanahdiyanahum subulanaa ay ay yooyu nga xam daa wàccee màkka booba xeex suñu boroom digaleegu ko ay yooyu yëpp ci jihaadu nafsi lay wax ak jihaad fillaahi ak jihaad bil quraan yi jihaadu daawa <coughs> mi ngoog kon jihaad mënta ñàkk jihaadu nafsi mooy xeexak ak sa bakkan xex sa bakkan nak la ca jitu moy nga xamne ne bakkan mom liko sun borom waxe inna nafsa la amaratun bisu bakal bakkal bakkan lim lay digal moy lu baaxut ci yow rek yok sa bakkan ta ñak ndax bakkan mom ay banexam rek la xam te bànneex yooyu yi mën mana baña bok ak li yalla bëgg yok sa bakkan nak fexe ba tënk ko ci li yalla bëgg lolu moy li jitu mi nga ko lolit mënoon nañ ci wax lu bare bari ndax buñ ñu waxee bakkan manam maanaam cër yépp yëpp aaji nga sam ko làmmiñ wi amna yo xamni dang ko ci wara moytu te moy lu mel jëw ak tuxali wax ci anamu yaq ak wax safanu deug ak wax ju ñaaw ak yene demee làmmiñ li tax yàlla sàkk ko mooy jàng alquran ak tudd yàlla ak wax ju baax yeneen cër yi noonu lu mel ne sa nopp yi itam waroo cee diglu lenn lu naqar yàlla ak lu yàlla aaye ak lu yàlla xaraamal ak wax ju ñaaw alquran nga ci war diglu ak Qasida ak yéen demee bu dee say bët itam noonu war a cee xool lu xaraam da nga war a damm sa gis ci lépp lu bon ak lu xaraam di ci xol alquran ak qasida ak lu bax ak lu dagana moy tu lepp lu xaraam muy dem jihad yep non nga ko wara sam lolu jihad no mana la tambale <coughs> ah, jihad nak mom mën ta ñak te nit ki léeg man nako na ko mana mana mën ko ñu wutub sëriñ ya yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo don mo don bi nga mo don di sellal bakkani saxaaba ya moom la suñu borom wax ne wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaaba al muzakki al aazam moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo doon taxa taxawaay sëriñ bi gën a mag nga xam ne moom moo njëkk a defar njëkk a yar saxaaba ya ci tazkiyatu nafsi ak xeex ak seen bakkan kon loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy li jiitu maanaam bakkan daal faw ki nga xam ne day dox ci yoonu yàlla moom faw ak njëlbeenam faw mu xaw a metti tuuti ci bakkanam ay fekkee sa bakkan lépp lu mu laaj da nga jox ko yow doo dem fenn moom waaw moo tax gars yi daa wax ne yoon wi dafa am ay ay ay usul mooy bidayatun muhriqa njëlbeen gu tar gu metti ci bakkan mooy tax nga am nihayatul mushriqa mujj go goo xam ni gu neex lay doon mi sant itam ci yoonu gaa yu baax yi la bokk ci melo yi la bokk ci usóor yi la bokk itam sant mooy xéewal yëpp nga delloo ko ci suñu borom tabaaraka wa taala te xam ne suñu borom moo ko maanaam xéewal yépp ci moom la jógee sant nag mooy li gën a jafe moom wa qalilum min ibadiya shakur loolu suñu borom wax waaw xéewal yëpp rek ci suñu borom la la bàyyi ko wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuhaa xéewal yi suñu borom yi moom kenn mënut a xam nu mu toll ndax dafa bari fi ne tey am gi nga am fi la fi la ci la tàmbalee ni amatul ijad loolu moy xewal gi njëkk fi ni am gi nga am fi ni mënoon nga baña am di señ bi man nga baña am waye suñu borom sak la nga nek doomu aadama boole ci mënoon la defum xardi wala mu def la ginar wala mu def la melantan waye mu def la doomu adama loolu fofu la tambale xewal gogu fofu la tambale ginaaw bi tam mu def la nga gëm yalla. fi ni am na ñoo xam ni gënewoo leen dara waye amuñu taw ngëm gëm yalla xamuñu ne sax yalla amna gëm gi nga gëm yàlla ñaareel ba ci biir diine ji tam mu boole noog sëñ Tuubaa fi ne yëpp ay xéewal la nga nga doog a ñëw nag ci xéewal yi nga xam ne moom yaa ngi koy dund waxtu wu ne mooy muy gis gi ngay gis ak dégg gi ngay dégg fi ne am na ñoo xam ne yàlla day muur seeni bët ñu gumba duñ mën a gis dara te ñooñu gën a woo leen daara fi ne yaa ngi ñoom te itam waxtu wu ne yàlla mën laa teg natt bi mu leen teg fi ne nga xëy suba dootoo gis dara nga xam ne looy def dañ la koy dañ la ci jàppale am na ñoo xam ne mënuñoo ñoo fi ne ñooñu dootuñu bokkati ci nit ñi fi ne te ñooñu it leen dal suñu borom a leen ko teg te waxtu ne mën na la ko teg fi ne xam-xam bii ngay jàng itam ba jàpp ne mokkal nga di ko ndamoo xamoo foo ko denc fi ne da jàng ba mu yàgg rek nga jàpp ne ma nga fa soo ko bëggee fàttaliku gis ne mi ngi ñëw waaye bis man ngaa ñëw bëgg ko fàttaliku fi ne mu tëla ticc ni ma ko waxee loolu mooy li ma wax waxtu ne ne xéewal yi nga xam ne moom moom la ñuy dund yëpp fi ne yu ñuy jëfandikoo lañ waaye du yoo xam ne noo ko sàkk wala nu moom ko ne nelaw rek ci misaal mooy misaal mi ci gën a leer nelaw moom guddi day jot nga ñëw waaj ba jekk ñëw tëdd di xaar xéewalu nelaw jekk yëg ne nekkatoo fi xamoo fi ne lu la yóbbu ak kañ nga dem fi ne doo ko yëg boo nopp ba nopp lu yëg ne delsiwaat nga xéewal yëpp noonu la fi wax gi ngay waxee noonu la wax ji fi ne ngay gis ne bëgg ngaa wax rek gis ne yaa ngi wax gaa yaa ngi dégg di ngay wax noo def ba wax fi ne ko xamoo ko yëpp ay xéewal la yoo xam ne nag daa aje sant gu wér a wér a wér moo tax xewal yi ay xeet la am na xéewal yoo xam ne xéewali adduna la lu mel ne wér gi yaram gi nga am fi ne tey ñee tëdd ci hôpital am na ñoo xam ne fi ne tey boo leen laajoon seen alal jëpp li ñu am ci adduna sépp ñu jox la ko te am wér gi wér gi yaram fi ne rek dañ koy nangu fi am na xam ne fi ne bala ñoo tuur ndox dañoo dem hôpital fi am na ñoo xam ne fi ne mëntuñoo lekk ci lekk yi yan am ñoo xam ne mënuñoo dox ñoo ay beeke lañ yor am na ñoo xam ne fi ne tey fañ tëdd dañ fa tëdd fukki at ak juróom te yëngu duñ ko man ndax mënuñoo jug te ñooñu gënoo leen ci genn wet yéen a yem te waxtu itam la leen dal yàlla mën na ko teg fine am na ñoo xam ne ñoo yow a yemoon nekk ci seen wér-gu-yaram benn benn seconde rek lañ jékki rek dégg nga suñu borom teg leen nattu boo xam ni maanaam ñu nekk foofee ci foofee yooyu nag yu mat a bàyyi xel la sëñ bi waaw xam ne wér yaram gii nga am ni waxtu ne mën nga ko ñàkk jàmm ji nga am ni waxtu ne mën nga ko ñàkk yow ne gis réew yi nga xam ne nekk ci xeex nga xam ne te yow yaag sa njaboot gépp da ngeen di jël mboole bagage yi ngeen am li ngeen ci mën a jël ànd nak di dox masalan wuti ganar ay libeeg ak faw nga xane ne amatu fa motax tax señ bi lu ko waaye jënd rek jar na ko kuy wax luy xajamal jàmm da xamul luy jàmm wala bok manam koko sax da ko wara japp jàpp ko mom bala mo xajamal jàmm ji ndax mom señ manam bu ñaké jataay yi ñu def sax dootu jàng ak xasida ak yëpp ko talati bu ni ñuy def di magal di sant waaw mm-hmm. ñu ko talati señ bi amna rew yo xani fi nek kenn señ fa dajé fu ñu dajé ay nit lañu yor yor seen ngannaay di di di di di di ar mbolam lu ko may nit songu leen jam amul fofé motax yoy yep xewal la yu reey reey ak alal ju leew masaran am alal ji leew di ci dund añ ak reer lolou sëñ bi manam moy xewal la yep na moy xewal ni am ad dunyawiya am na xéewal yoo xam diine la lu melne xam lu baax ak jëfeku ragal yalla xam yalla xet yooyu ay xéewali diine la yooyu nañ ci taxaw am na xéewal yoo xam ne xéewali àllaaxira lu mel ne yool yi ak tuyaaba yi nga xam ne moom la suñu borom digge ëllëg yëpp xéewal yu jëm ëllëg la kon xéewal moom la ca jiitu wa ma bikum min ni'matin fa min allah xéewal yëpp nga xam ne yàlla ci suñu borom suñu borom ci moom moo la ko xéewale waaw suhuduna min dil jalaali niama ni ko suñ ni ko suñ tubaa waxee maanaam xéewal yi nga xam ne suñu borom ci moom moo la ko xéewale waaw te fi ne la ca jiitu nag yow mooy yi nga xam ne bàyyiwoo ko xel mooy am gi nga am ak gëm gi nga gëm yàlla fi ne tey loolu tawfeex la fi ne gëm yàlla fi ne mooy xéwal gi gën a rëy ndax suñu borom moo la koy tawfeexal walakin la xabbaba ilaykum liimaana wa zayyanahu fi qulubikum walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin maanaam tawfeex suñu borom rek moo tax nu gëm yàlla nekk ay jullit kon sant moom it ab bunt la boo xam ni mënta ñàkk ci xol nag ak say ak say cër ak saw làmmiñ lu ci ne daa am cantuk boppam ni ko sëñ bi waxee ni ko sëñ bi waxee lu ci ne daa am cantuk boppam làmmiñ bi moom mooy wax baati sant yi waaye cër yi moom jëfe ndigal yi mooy ak cantam xol bi nag teewlu ne xéewal yi ci suñu borom la bàyyi ko loolu mooy ak cantam teewul nag jaarawaay yi suñu borom jaarale cant xéewal yi moom war nga leen sant ba tey ndax yonte bi wax ne la yashkurillaha man la yashkuri nas waaw ya. ah, nit ñi nga xam ne ñoom la yàlla jaar la xéwal yi faaw itam nga leen sant ñoom it loolu wut ak sant yàlla ndax suñu borom gis nga ba mu ne nang ma sant dafa wax ne nga sant say wajur anuskur <clears throat> li aniskur <clears throat> li wali walidayk wali walidayk mi ngok eh, ñu jeexale ko tarkul tifatin ila halil bariyati iltifat moom yàgg nañu wax ne murit bi nga xam ne day geesu du àgg mukk kuy geesu moom du àgg mukk du dem fenn <coughs> koo xam day dox di geesu kooku du dem fenn moom waaw murit dëgg-dëgg day xool ci kanamam rek du geesu mukk du xool ginnaaw du geesu geesu moom xaf la moo koy waral te xaf la suñu borom da ko aaye mooy càggante murit dëgg du am waxtu sax geesu mbaa gis keneen mbaa xool leneen <coughs> day dëgmal suñu mboroom rek te bañ ca boole benn caaxaan bàyyee nag nit ñeeg seen borom lu ko waay wax mu mu jéggal la te yàlla rek tax loolu bu ca saxee suñu borom mooy wulbati xol yi xol yi ñu wut ñu wut ñu wuti ko waaw wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattabaqa hawahu wa kana amruhu furuta yaakaar naa mën nañoo taxaw foofu bu fekkee am na benn laaj ñu motale ko bu ëllëgee nag lu doog a ci li ci waaw app app yi de wax nañ ne moom borom wax ci alquran jaa ajaluhum la saatan wala yastaqdimuna waaye nag teewu dafa am ay jëf yoo xam ni yonente bi sallallahu alayhi wa moo wax ne ku ko jëf dana yokk ci sag dund dana yokk sag dund dara tey masalan jokkuk mbokk boo ko defee an yonente bi wax ku bëgg an yunsa alahu maanaam koo xam ne bëgg nga ñu yokk dara ci sag dund sag dund gën a yàgg nga yàgg fi del jokk sag mbokk loolu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax loolu nag eh, neex naa dégg te mooy sunu borom ci moom xamoon na ne yow fanweeri at nga fi war a def waaye nag boo amee ñaar fukki at da nga dem jokkuk mbokk doxuk mbokk goo xam ne yàlla rek ay tax doxuk mbokk nag yonent yonent bi daa xam ne laysal waasiru bil mukaafi yi maanaam tey ku la jokk nga jokk ko loolu bokkut ak jokkuk mbokk maanaam ku la ñëwal nga ñëwal ko ku la ñëwalut doo ko ñëwal loolu moom yow sa ngay jokk waaye jokkoo mbokk waaye yow sa bopp ngay ngay ngay nga fonk daal ku la fonk fonk ku la fonkut nga teg ko fe jonk mokk mooy mooy mooy ñi ngay jokk yàlla rek a tax maanaam an tasila man qataaka na ko yonte bi waxee koo xam ne lay dog sax nga di ko jokk te yàlla rek tax nga xam ne moom la ngay def yàlla rek nga ko seeral bu la ko fayee baax na bu la ko fayut it yow doo ko seet doo ko bàyyi xel sax jokk mbokk mel noonu nag day day day day day guddalu fan léegi nag suñu borom mu ne yow da nga am fanweeri at nga fa war a def waaye di nga jokk mbokk goo xam ne rek a tax te war na la ci yokkal masal ñaari at mu far la bindal fanweer at ñaar xam nga seet nga ne mu ko wax rek lay doon xam nga loolu juutiwut ak maanaam dig boobe mu waxoon dara isa jaa ajaluhum la yastaxiruna saatan wala yastaqdimuna maanaam dig bi moom moom mooy mooy yow fanweer nga waroon am waaye jokk mbokk tax nañ yokk ci ñaar wala ñett moo tax fanweer ak ñett yi fi ne mooy sa ajal yamxu llahu ma yashaaw mi ngoog maanaam dafa am maanaam lawxu am lawxul mahfuus mm, dañuy mooy alliwa ja nga xamne tay lañ fa xass bind mom du soppiku way amna na alwaax manam manam maanaam yi nga xamne mom la malaika yi yor yo xamni lañuy bind fofu meuna soppiku manam malaika meun nañ ko jox ne ko yow kat ki ak dundam nangam la ay mu dem bam yagg ñu xamul ko ne ko kat yok nañ ci nangam xamul ma wa wa indahu umul kitab umul kitab mom la ci ne du soppiku waaye yenen nga moom la malayka yi ñoo nekk ci loxoy malayka yi yooyu mën naa soppiku ci kaw nag bëggug suñu borom ak mbir mu ne na ko suñu borom xam suñu borom nag ëmb ci ëmbali ci woon dara loolu mooy gàttal ki yaakaar naa leer na ngok julli ci kudul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu bi seen nga def ko di li ñuy julli ci yonente bi lan la ñuy wax allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi alihi xam nga ñu bokk ñu yonente bi loolu bi seen nga def ko te yonent bi moo ko jàngale bañ ko laajee nan la ñuy jullee ci ci yow xam nga ba aaya bi wàccee saxaabe dañ ko laaj ku bëgg julli ci yow nan ngay def moo leen jàngal da ngay wax allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammadin kama sallayta ala sayidina ibrahima wa ala ali sayidina ibrahima nag jafe-jafe mooy wuute bi mooy ndax sañ ngaa jékki-jékki rek wax maanaam julli ci kenn ci seeti yoonte bi wala njabootam ci lu dul ngay tudd yonante bi foofu moom am na wuute ci diggante borom xam yi ndax jekk mën ngaa sa tudd masalan soxna Fatima ne alayhi alayha salaatu wassalaam wala am na wuute moom ci borom xam waaye lépp ci borom yi moom wax na ne mën nga ko salaam moom mën nga leen ko def ñoom ñëpp moom salaam ne tey ku mel ne Buxaari ci saxiix bi fu mu tuddee soxna Fatima day wax ne alayha salaam lay wax alayha salaam moo tax loolu dara nekku ci dana nekk ci salaam surtout salaam moom moom mën nga koo def ci ñoom ñëpp salaatu nag am na ku wute waaye li gën a wér mooy ginnaaw yonte bi jàngale na ko rek wax ko julli ci ñoom ak seen maam dara nekku ci wax dëgg yàlla waaw la ima imaamu imaamu Saafii wax ne man lam yusalli aleykum laa salaata lahu maanaam booy julli ci ginaaw ci biir julli fi ne ci biir julli faaw nga julli waale ci ñoom allahumma salli ala sayidina muhammad wa ala ali sayidina muhammad wala ci biir julli nga koy wax xam nga waa ne yakfiikumu min azimi alfadli an an annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu maanaam ku julliwut ci yéen ak julli amu ko amatul julli fi ne kon ginnaaw ci biir julli lañ koy defee loolu wane na ne loolu julli gi ngay julli ci yonent bi boole ci ñooñam ak i saxaabaam maanaam bi si ay juddoo nag lañ ci dugal nag saxaaba yi lañ ci dugal saxaaba Ya, mình malaika jibril di dalam dan dañ ko mau fit. jibril kau yang kau ko fi jibril Alaihissalam. Yang kau tuh deh. Jadi doom léegi gis gisuma ci jibril Di moom gis naa ñu bari ñu ko jibril sëñ Jibril Diagne am na ci mag ñi àndoon ak sëñ Tuubaa ku ñu borom daal moo tax ku ñu ah. sëñ Baye Jibril mi ngoog mi ngoog waaw mi a tudd nañ ko Jibril daal nag laa gis waaye yeneen malaayka yi Azraayil gisuma kenn ku ko tuddee doom moom. <laughs> waaye tuddee doom moom yonent bi daa daa Ismaayil ab yonent la. Ah, ab yonent maanaam eh, tudde doom nag yonent bi daa wax la ca gën moom doom tur moom la ca gën moom mooy lu am abdu abdu nangam abdullahi abdurahman abdul ahad abdu wala boog muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala ahmad wala ñu deme noonu yooyu moo gën ci tur yi mi ngoog malik ndax cosaanam malik moom moom du malaaka kese malik malik ma imam malik <laughs> moom nit ñi dañ koy tudd xam nga <laughs> alik mom du malaika yi momu ñuko da am tur yo xani malaika yi nit ñi ñoko bok amna ci malaika yi ñu tuddu malik way amna amna amna amna tur yo xamni malaika yi ak nit ñi ñokay bok mi ngok mi ngok yalla yalla mako jox ko suñu ne yalla mako jox wala do def yalla waaw sëñ mag bi de loolu mooy lu ko yàlla xamal xam nga yàlla moom ni muy xamalee ja ab jaamam ay xeet la am na lu ñu tuddee wax yu wax yu mu am ambiyaaw yi rek la ko jëflanteel waaye am na lu ñu tuddee ilham moom dégg nga gaa yu baax yi ak nit yàlla yi ñoom ilham lay jëflante ñoom wax yu sax fi ne tey du ceegee ne ambiyaaw rek gis nga fi ne aw xëy naa ila naxli xorondoo mi gis nga yàlla wax yu leen xorondoom yi tax xorondoom xanaa fu ko yàlla wax yow war a mën a wax yu si Ahmadu Bamba radiyallaahu anhu xanaa <laughs> waxee na ila ummi Moussa gis nga ummu Moussa du yonent xam nga du yonent yàlla wax yu ko moo tax wax yu mooy suñu borom xamal ko nam koy xamale nag ay xeetu yu bëree bëri mën naa jaare ci am malayka mën na koo toqal ci xelam ak yéen demee comme azzaadu azzaadu bi ak jirma ak waja. Hmm. yi day waxi waxi ilmu kalaam la xanaa. zaat moom bokkut ak zaat buñ ko waxe moom dees na ko melal suñu borom tabaaraka wa taala zaat mooy jëmm jëmm jëmm rek waaye bokkut yaram xam nga ci ci wolof daa amut xam nga daa daa wut diggante zaat ak jism yëpp ñun jëmm rek la wax. gis mu ne kenn du ko melal suñu borom moom mooy suñu jëmm yi nga xam ne aw yaram la yàpp ak deret ak yu dem noonu kenn du ko melal suñu borom ndax suñu borom lay sekk mitali chef daat nag bukkut ak loolu daat mooy jëmmi mbir mi rek nga xam ne tey eh, maanaam bukkut suñu jëmm yi masalan jëmm jëmm ja rek jëmmi mbir mu mën a doon rek loolu ñuy wax daat jiir mu nag mooy jëmm ji ne léng comme ni ko niñ koy <laughs> niñ koy firee fii ci ni ko Cheikh Abdourahmane di firee jëmm ji ne léng loo xam daa yore jëmm comme comme comme suñu jëmm yi wala xar mi wala kii loo xam da nga xam ne fii la tàmbalee fii la yem mu am poids am tolluwaay am guddaay am luñ ko mën a natt li nga wax jërmu wajhu nag ba tey suñu borom jëfandikoo na ko waaye la muy tuddee boo ko ak noonu li ñuy tuddee wajhu masalan inama tuwallu fa thamma wajhullaahi wajhullaahi waaye wajhullaahi ku mel ne Buxaari tawil na donte ñu ñëk ci dañuy ay tay suñu borom tuddé waju ak non lañuy wut tudde waju bokku ñu man suñu borom mom gattal gi moy da bokku tak mbindee fi dara dara dara dara dara suñ tuwaa lam wax ci mawahibul qudus moy lepp lo xamni tok na sam xel xamal ni fa bi khilafi zaaka rabbuna al ahad suñu borom wuute nak lolé lepp lu tok sa xel ba nga japp ne lolé yalla xamal ne loolu bokkut ak yàlla yalla mom amul dara dara lu mu nural moom lay sa da wax da jexal wax lépp loo xam rek xam nga noonu li tax suñu borom moom duñ ko mën a tasawur mooy maanaam suñu borom daa daa mësta jaar ci suñu xel yi te suñu xel yi li mas li ci mas jaar rek lañ mën a xalaat fi bu ñu waxee dëkk fi ne ginnaaw mas ngaa gisub dëkk rek koy natt ci lii nga gisoon xam nga suñu borom nag bokkul ci li nga xam ne mas nga ko gis moo tax boo ci bëggee noppalu moom subhaana man idrakuhu muhaalu wal ajsu an idrakihil kamaalu waaw maanaam boo xamee ne mënoo xam dëgg-dëggi mbiram dëgg-dëggi demee gis nga maaya bi maaya bi ko ko bi koy werante ca gànnaar leen sëñ ba wax mooy ku xamul dëgg-dëgg jëmmi suñu borom ci doo mën a xam ni mu nekkee uh, ak mbindeef yi maaya bi ma def mi boobu rek la waaw waaw ñaaree de mën nañoo firante xam nga suñu borom tabaaraka wa taala yonente bi daa wax ne képp ku julli ci moom sunu borom ci moom day julli ci yow fukki yoon léegi huwa alladi huwa alladi yusalli aleykum wa malaikatu li yuxrijakum min adulumaati ila nuur xam nga loolu mën naa tekki aaya bee mooy jullik suñu borom mën naa nekk leer gu muy sànni ci xolub jaam bi leer googee nag eh, moom du fa bàyyi dara ci taq-taq moom ak tër ak lëndëm lëndëm moo tax julli ci yonte bi du rëy rëy maanaam julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sabab suñu borom ci nun maanaam boo jullee ci yonente bi ci suñu borom di julli ci yow moo tax ñaari ay yi mën nañoo mën mën nañoo tekkente mi ngoog yaakaar naa hmm? dojo waaw waaw waaw man man tasawafa walam yata walam yata faqa faqat tasandaqa waaw xam nga loolu mooy koo xam ni daa nekk daa bëgg a wax ne day dund suuf yi waaye ak tasawuf te booluwu ci fiq booluwu ci sariya loolu nag daa mel ne maanaam mañ ci jublu dëgg-dëgg mooy ñi nga xam ne dañuy wax ne rek yàlla ñoom la ñuy jëflanteel moom la ñuy gis nga xam ne moom maanaam leneen amul lu ma yàlla xam nga loolu bu fekkee waa ji da ko wax mën na ko jural bàyyi mbooleem jëfi sariya yépp ndax moom gisatut kenn daa mel ne bàyyee ba jëflanteetut ak kenn ku may yàlla loolu buntub zandaq la moom buntub kéefar la boo xam ni man laa dugal ci kéefar moom waaw moo tax sariya day loo xam ni day du taqalikoo ak ak ak ak suufi bi moom suufi bu bàyyi sariya du am moom sariya mooy fondement bi nga xam ne tey mënta ñàkk ci tabax bi tabax bi lu mu dem dem ci kaw itam faw mu am fondement fondement bu ñu ko fa jëlee rek tabax bi day rës diine itam noonu la nit ki lu mu ci sori sori itam ak lu mu ci xóot xóot ak lu mu doxam sori sori itam sariya moom moom du génn du ko du teqali koog moom mukk yaakaar naa daanaa misaal fii ci mu ngi mel ne tey étage bi boo doon yéeg ci escalier yi ba ca escalier ba ca mujj ngay séen maanaam asamaan si maanaam boo ne léegi naa mabbu escalier yi ndax maa ngi nii di seen asamaan si xam nga boo mabbi fi ne da nga yàgg escalier yi ànd daan di fekk demago ba ca kaw satax ba rek ba ca kaw te foofu moom feeg footoogoo doo fa àgg wa'bud rabbaka hattaa yaatiyakal yaqiin mi ngoog yaakaar naa mën nañoo taxaw foofu ba beneen yéen insha allahu taala aoudu billahi min alsheytaani rajim bismillahi arrahmani irrahim